mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi suivre seen site internet bi di 24actu le desuwaat ak yéen ci waxi Serigne Touba yi Serigne Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu mas na am ay gan yu ñëw ci Serigne bi muy wax ak ñoom ne leen na ngeen man gan te bu leen tëra dëkkandoo ñu ne ko fas nañu ko yéene Serigne bi ne leen ndax xam ngeen lan mooy man gan ñu wax ko lañu ci xam Serigne bi ne leen nuru na ko waaye di moom gan mooy guddi ak bëccëg man gan ci ñoom nag mooy fexe ba doo def ci ñoom lu lay rusloo fa sunu boroom ngeen luy télé dëkkandoo ñu wax ko lañu ci xam mu ne leen nuru na ko waaye du moom dëkkandoo mooy raqiib ak atiit man dëkkandoo ci ñoom mooy fexe ba duñ la bindal dara lu lay rusloo ëllëg sëriñ bi nee na am xëy bu rafetul dañoo war a fas jom ci ngont daa am xëy nag mooy ak ndaw li ci ëpp du rafet ngir jëfi ndaw yi am ngont nag mooy juróom fukki at jëm kaw sëriñ bi mas naa laajte lan mooy bitim réew ñu ko xanaa mooy réew mu dul sam réew mu ne déedéet ndax àdduna ku fi nekk yaa ngi ci bitim réew bitim réew nag ku ci nekk da ngay am full ji doy ni loo am yónnee sam réew loolu ko bàyyiwul boo demee ba dem sam réew boo yorul dara it itam loolee nga daa yónnee dana la ca teral waaye boo yónnee dara boo demee doo fekk dara am na bis weeru koor feeñ sëriñ bi wax ne ku mën a boole liggéey bi ak koor gi def ko ku ko mënul bàyyi liggéey bi te woor ku ne ko mënumaa woor sëriñ bi ne ko lu tax mënoo woor mu ne ko am ma lu ma doge am ma lu ma xadde sëriñ bi ne ko ma yaakaar ne lu am fu la ngay wax sa moromum nit rek boo ko liggéeyalee ba ngoon mu jox la loo lekk sàkkal sa borom sëriñ bi mas naa yor bant bu def posen teg baaraamu doyam ak sànnikaay ba ci cat la ne bu leen xeeb dara ci lu bon ak lu mu tuuti tuuti ba toll nii lu baaxi noonu daal waxaat ni fi ne lii bu àndoon ak lam war a àndal fekk ngoon lu toll nan la fi mën a yàq ñu ne ko mën na fay yàq lu bari mu ne lu bonit noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu